ñu sant yàlla gannaaw bi ñu fekkee nag ci kaw réew mi nga xamante ne yàlla teg ñu teg nañu fa programme bi nga xamante ne ñu ngi ciy jàppale këru diine yi te ki nga xamante ne moom laa fi wuutu jot fi def lu am solo waaye ñu fas yéene ko wéyal te fii bi ñoo na programme bi jotagu fi woon egsi ñu am yéene nag ni nga xamante ne noonu lañ koy wéyalee ci fi nga xamante ne jot nañu fa commencé dara te eggagul ak fi nga xamante ne sax matal nañu fa dara te fas yéene ko continuer ak ñoom ci yeneen yi projet ak programme yu ñu am noonu lañ fas yéene ci programme mu modernisation cité religieux yi ak cité religieuse yi ñu boole ci Bignona xëy ñëw nag jàppale la ci liggéey goo xamante ni yaa ngi ci ay ati ati nga nii te def ci liggéey gu mucc ayib te gis nañ ko ci njaboot gi gis nañ ko ci taalibe yi gis nañ ko ci sa taxawaay ci diine te dama faral di wax ne rek fi ngeen toog di defar jaare ci diine ak ku fi mën di nekk ci président de la république ne jàpp ne bu amee ay citoyen modèle ci ñoo xamante ne bu waxee ñoom ñu dégg bu leen woowee liggéey ñu wuyu si bu leen ne lii baaxul ci réew mi nañ ko moytu même buñ ko déggul sax déggee ko ci diine lu ci yombal rek ci lo xamantene wote la ci ñun te ñuy xaar askan yi liggey liggéey mo ñukoy yombalal kon kuñ ci fekk dañ la wara jappale ngir mu gëna yomb ci nga xamantene ño yore mi diko doxal bo amé jam ñepp am jam kon jam bobu la la jital nga jitu ji ñepp di ñaanal askan yu yépp waaye di leen ñaan ñu jàppale la ci li nga xam ne mooy say mébét ak ñi nekk sa gannaaw gouvernement bi yépp say mébét mooy Sénégal am jàmm sénégalais yi juboo sénégalais yi ànd liggéeyal Sénégal ngir mu dem kanam kilifa gi nee na loolu waar la woo xam ni bépp sénégalais war nga cee taxaw di jàppale gouvernement bi kenn ku nekk ca la nga nekk ci nekk ci bureau bi nga fonk sa liggéey ci nekk ci tool bi tamit fonk sa liggéey ak ku mu doon ouvrier bi ak ku nekk bu loolu bu ñu ko defee senegal dina mën a dem kanam